yow suma meko be sama la da hana hamulen maman suma jabar jaral na ma jahan jahannama sa hana hamulen ne man suma jabar bi jaral na ma ma de mile tu mbiram to fatu jañ sam isu, oke man nim dore yeb la la nay wax yaa yang understand man dama amon suma problemi boba. booba matrimonial am problem. Ko fik sëykat bogis am nga problem. te man lulu mako kos. suma jabar salte wut halak wut wala kana wut du domi haram. julit la du efer du eferi na feha. Buma ko doon nan. dama doon ay sangara I rose, you know ñaawteef si yooyu laa nekkoon yaa ngi understand waaye bu ma ko xamee ma explainal ko suma paas yépp mu nangul ma mu ne ma ne man fekke yow ko waaye du suma affaire tamit yaa man de bañuma la ngir yàlla te yàlla rek ay tax ma maay mun a seey yow bul ripiitaat yooyu ndik danga koy am am am am soo defee yooyu yaa man dama lay bàyyi ma dem ndik man dama am nawle dama am mbokk am te si famille bu baax car macha allah jógee ma ne waaw digga la dangay ma nekka noonu three good years this woman is there for me motax ma bàyyi gis nga ni ma frese mo may jang ayatul kursi bi ak ayatul kursi sa suma jabar momako momako ko moo ma ko dee dimun ba yu bari jàng alxuraan ñetti yon tafsir ko jël tariha tiyan be aga jël wirda be aga daf de muna joxe wirda so si yefi ku am second chance concert boobu noonu dañ ma uba marto e get ma dem am tuuti stress naan vodi eh, vodi laa dem naan benn benn kandrinki vodi laa naan ma dem tëdda nelaw muy xeeñ suma jabar beetama yaa ngi understand yàlla moo ma ee rek waaye ni kon dama doon fekk suma jabar dem ni mooy paakee pour dem yàlla eema ma dëcc amul jooy bu ma jooy deret laa mënut a jooy rek di ñaan jaay naar ko baalu naan du amaat waaw man maa cuur suma life du mus a nekk secret dama bugg a nekk sample everything should be transparent ma nekk life ñaan suma jabar. You me? di cool. Man hamuma fa jaj. From nowhere suma phone be ring. Hello. ko kala ay want pa Ah, wow. Man la fa jaj. Ban fa Man la fa jaj the activist. Man ko na aha man na don set ngi sa live Facebook bi ya nga amé jaasi ah ñaari jaasi ah naan dangay dellu back to the street ak all that you know foo nekk nii right now ma wax ko suma destination mu fekk ma fa suma magi jabar ak ñaari rakam yaa ngi understand mu ñëw xam nga ne ma fekka man maa ngi setul suma mbokki jabar eh, jabar yi bi mu ngi ñu ngi ko kuul loo ba mu kuul moom mu daj si ma apprécier ko fiir ne kii nit yi yàlla la ndeke am fiiru ma ne prétenda yooyu la o oh nit kaay leen gis ma wala bës la ut si yaa ngi understand ma welcome ko mu intervene waxaa xalaatal kuy ñëw pour defar naan ko lii yëpp mu xam yow de mun ngaa muñ su man na dem naa suma yoon yaa ngi ma ne pat ma xam waaye maa ngi koy riit damasona ha watakaende uma nayona sa fambi duga suma life di kirin karam kirin karam di def go phone me ken bañut halis i love the money i'm hustling the money but i need clean money a cool money not halis Butanga, not halis boo xam ne dang ma koy jox yaa ngi may ngay teg suma muuti bi di ko weer comme géeja You understand? Can you imagine? You get me? This lady, this is how she forced herself into my life. You get me? I'm not keeping the money. Forget about her. I'm I'm not I'm going to the dafla defaron go for me, go for me. Go for me bobo du purmande. Go for me Bobo pam la defal. A Karen gives my go for me. Fine. I appreciate all that good that come from her but at the end of the day lu tax ma daaxa ko suma boor dama ko daaxa da toog rek doo leen ma doo leen di gis Faa Jaañ suma boor ma pat bu mu ñëwee xam nga la la ma njëkk a wax mu ne nit yi ñu ne du ma mujjee a yow ma ne ko ne maa ngi wax alxuraan laaj mooy suma seet rek right now maa ngi wax ma ne ko ah ñu ne ñu ne du ma mujjee yow xanaa tamit da def. lu ma dee am tàggatoo nit ñi non man de xaw ma de nit ñi ne yow ma ne ko ne kon bul def lu may tàggatoo yow Fatou Jagne def ma ñaankati sarax suñ ko yónnee bu mooy def vidéo boobu noonu maa ngi toog de amul kii lu mu man gor laa I have feelings but duma mun a am disgrace people Do you understand? About you know, for the first time, like okay, she come acting like she come to my aid and all that. For judge, maybe my halis. That's why I do. Man, lu munti jar si lohom. Nini Europe, nyoma they look after. Video bobo. ak situation bobo. Nini hamne a man I'm a good boy and I need little support like. Yeah, you understand? I do not be mer. The ina meen xale bu góor mu ngi dem tough time eh kii ku ma yónnee eh, xaalis mu mu vidéo gis nga one pack moo nekk ne ku ko kool one pack laa nekk nii amut li mooy lekk sax ak famille am moo kii xanaa kii daf ma foog beega man su ma nekkee beega dinaa dugg a mayatu dinaa nekk ex con xam nga dama lay wax ni benn ñaar. disrespect bari kii seconde bi mu ñëw maa suma yaay dewee tànji dem jëndi jën tànji moo tiida tiktok boobu xawma waxuma la tiida am tiida jóob de beneen tiida saañan na xawma bés bu tiida saañan tiktok yaayam dee de bés boobu bés boobu moo benn tiktok a fekka mu ne suma saay lañ doon ñëw fekka ma suma yaay lu at this rudeness and disrespect since that day laa génn a faat jaañ xamu ko yéen foo leen nekka ñu ñëw ak seen moto gisuñ eh, eh, ñu léet pour dab ko kii booy wit suma yaay mu ngi toog faat jaañ di xataraa yu mel ni dafa ma ñëw lekka ñun waa Banjul lañ dañ am kóolare suma yaay sànnil ko am musóor mu ne ko jaañ ba paak wax ma wax na ma yëpp waaye ngir yàlla man la dem jëli woon nii nii nii di ko ñaan muy over agressive di dugal seen moto moo tiira saañam boobong si moto bi tiktoka bi ma waaca dem swallow my pride waaca dem ba si moto bi and I gonna sorry. Yeah, yeah, right. Them. Yo, I don't wanna lose you. I don't forget favors. I don't have plenty good people. The few I think they are good and I'm having, I like to keep them. Why if I lulu Asna Lulumoko brag? You know? It's not am xëj na lulu moo tax brag Buga ma def yooni tool ak nit ku fulis bugga maa yeb you know di jël suma phone yi you di génnee di ma génnee si whatsapp group yi di block ni ñi di you know ma ne femme bi ne hey man du ma nii man am not cheap man am not a pussy tey du ma saaga ndey moo jaane mu ne ma bàyyi saaga ak suma nit yu baax yi nekk yi rob ñu ne ma bàyyi saaga ndey because man Gambia aw ma nit ku baax ñi may ooyee nit ku baax you know I have five friends two are standing right now ñu ngi nii du ma leen woon carrément and Bakary Nyandu Bakaw Nas my mother my wife finish you get me waaw kii tëf tëf ma xam lu bari riis lu si moom xam lu xew you get me nomba am laa dee joxe ku ma bugg eh, support nga yónnee ko ko ma jot si pour mu fiir xam ne carrément I left her to be in charge cause moo feeñ yaa ngi understand ak kii bëgg a jot jomp rek jomp di direct suma life Fat Jaañ maa ko daaxa suma boor ma block ko yaa ngi understand moo yeneen sister yi ñoo may mun a jiiba nekka Denmark ina min di ko yónnee di ko wax ne vidéo ko nga wax ko mu mu mu baal ma Hmm? mu mu mu man nit yi leen gis man du ma noonu man suma baay boroom alal la woon hôtel la amee woon son beach son wing hôtel baay Seyka la tudda moo ñoom mari seen man seekeen laa jóge Banjul suma yaay waa Gloucester la tati it man duma doomi haram yaa ngi understand bañkat laa su ma nangu woon duma dugga mile two ba xam luy meetiti dëkk bi femme bi booy ma buloo ko bugguma nit yi sax comme tey lii nii mu xew oo nit gis maam maay faajaañ maay delete su vidéo yi ma delete su vidéo yi ma ma dooree di delete vidéo yi kii buloog ma mu ne ma kii tongoo ma nit yi ko suma xaalis nit yi di ma kool di ma wane ñu ngi yónnee faajaañ nangam gis nga ko waaw laa dee wax gisuma caapa ndeyam at the end i am not fo five five five five time rek la yeah after that gisuma dara fale umako because moom mooy almuudu bi li mooy am de mangi gis Melvin Melvin the lawyer, mu fara-fara Melvin nekut in favor of Bob nekut in favor of um, Sainabou Bombay. Melvin is just in analyzing the case the nature of the case. as a I'm, I'm, legal minded somebody. te thumbs up Melvin te man xaw ma Melvin waaye dama lay wan ne Faa Jaañ bàyyil ni nga nekkee yàgg nga laal. bii part one la two dina ñëw three dina ñëw waaye two bi lu koy indi su ma la déggee waat nga ne nekk di nga gis wild two su ma déggee waat nga ne nekk nga dégg deadly three. Faa Jaaj ma xaaral ma wax la ku jur njëkka maa moom luñ def gis nga bés boo ñëwee nga ne ma ne sa papa mooy king raas kuraas yaa ngi ma bés buñ doon dem si APS bu nekk am turntable nga ne ma ne ma suma papa mooy king raas kuraas da nga gis ma ne la xam naa ko wala xamuma ko dama ne pat sa papa boobu noonu king raas kuraas maa mooma daan naan sàngara abu ko benn baa nekk si gamteel bi gamteli abu bi King Raj courage boobu suma réew waaw suma Africa force life am yëpp benn track la ko def dafa naan sàngara ba dee xalaku maa la gën le from baay to baay laa lay wax nii hmm? Bamba Sakho mooy suma maam former AG Chambers Bamba Sakho Banjul ñoom Bay Siñaan ñoom Ibuloo bu Yaya Jammeh papaam ñooñu ñooy suma oncle yi Rilwan Lowe oncle Rilwan Lowe ñoom yaaje saaxo maa rëy le family maa jógee si mbaga yu rëy maa ngi simsima rek faa jaay ñëw démba ama kula commental muy wax man maa tey ñu réeb mam ñu ma tey réeb ñoo ko tey justice must come naa wax wampaag bul ma wax bul one pack doo fa em naa wax ne pack bu man I come to high eight suma yaay sax am time bu corget amut corget mu ngi bugg a am fixe corget am taw baa ngi taw si kawam ma jël suma xaalis dem defal ko doomi xaraam nga loolu tax amuloo ñaan man suma yaay du nekk si am am corget may dem ma war koo uh, kafta ma am barke ma ne ma may ut kaay gis ma tur doomi xaraam nga ba ma ko waxee sa loolu laa wax suma xol doomi xaraam nga waaye Gambia dëkkaa doomi xaraam wala jëfoo doomi xaraama bon Fadiane yow lan la doo dooma avoid da nga foog ne man Adama Barrow laa amuloo benn respect yaruwuloo bàyyiloo Adama Barrow di ko saaga tey nga dem si moom doo ko dee gis sa yëpp dugul yaa understand si naar yi nga nekkoon you get me ñu lekkal loola pour def la caga foofu nga ñëw fii di duul activiste activiste di ñàppi si kaw nii nga jànguloo arab jànguloo angale amuloo métier yaa ngi understand ngay laal nit yi bul ma laal man man dama feebar ñetti sëriñ yi métti di ma faj maa ngi faju wéruma danga dof Fatou Jaañ danga dof tiktok yi ma àndaloon dëji tik ti am bési da saañam bi naka waaw da saañam bi TikTok teg ay yi nga àndaloon gis nañ ni nga doon behave Faa Jaañ mala la kanasu xale bu ndaw nga doo doo suma moroom doo suma saaga xëjut si sa gisuloo noo lambee solu bu baax sa doo ko def yére bu baax sa doo ko def Adama Barrow bi ngay yablu di yab jabaraam di yab nit ñi ñoom Melvin ñooñu ñoo gën sa baay fooy fanaan nii sa Adama Barrow mo la ko jox safren yi nga may wax ñoom may mun ak yooyu noonu ñoo yëpp ñu ngi may wax li ma ñooñu alcoholique lañ Faa Jaañ sa bay daf doon naan sàngara ba mu dee naar yi nu ka nañ la ba soona booy laykan nañ la pour ba soona nga daw si ñëw fii ah yow luy sa problème Faa Jaañ Ah, xanaa téere téere bu ees nga amee booy test nga ne ma dugga si one pack king raas kuraas dama ko xam bu baax dama lay wax sa bopp rek ak mu nekk sample to every any Gambian kuy laal one pack man am so fortunate ma coincide di leen xam ku ma laal am naa lu ma la wax xam nga loolu lu tax mënu leen maa wax man maa man dama wesi wes suma boppa comme jën bu bem set balaa maay ñëw man dama war li ma doonoon ma ne Gambia jàppale leen ma ma change yow Faa Jaañ da xamadi yu are very undisciplined amuloo kersa benn mag amuloo respect amuloo kóolare su ma roofee su ma lef foot bi si sa caapa bi sa caapa bu xeeñ bu manqué kooy boobu noonu xamu leen ne ñaaka kooy bu bari daf dee jox jigéen mental problème fa Jaañ problème boobu nga amee ak dañ la abuse torop kooy yu baree la abuse xam nga dañ toogoon nga ne doo gudda fan dëggalat because xam nga loo dee def soo ko bàyyi doo gudda fan danga dof man mala forcé nga dugal sa halis si man mala call sa ola man dama la xam ma tok rek suma phone bi riñ nga ne danga ñu foko ne danga ñu ak dede da danga ñëwoon pour kaay aduna gis ma ak yoyu di nga xamne am ah am set before you people set settle dama ne ak si kaw bala yow danga di Fatou jaay suma jabar degala niti jamala la nit ku bala bugut gori domi haram bugut gori nan kati sangara te mako promise nes dama bay sangara suma seyee dama bay. mu seyal ma atuh at sangara be last june ma champion sound things demeni munuma ko koo resist mu demee ni mu fa demee ma dem naan benn vodi su ma yabar mer si loolu bugg a ñibbi te raytaam la dem because sàngara mooy lu yàlla xaraam mal si jëf yu bon yi yëpp mooy ndeya bàyyi jëf bu bon loo def noonu su fekkee ne it was godly not worldly macha allah nit ku baax rek ay def noonu hmm? Fat watch your back fii laay am du wax too much but am too much xam naa la too much the best is leave sleeping dog to sleep man du ma sa morom ah Faa Jaañ soo amee sa yabaate man duma aadama Adama Barrow du ma first lady boo di ñooy saaga oo di leen wax lu leen neex mu laay jikk ñu la see bàyyi gis nga nooy waxee noonu laay waxee dama laay def suma carrière gii nag nga def beneen vidéo o nga respond dinaa la def loo xam ne wax loo xam da nga fo da foog ne boo doon juddu dama toog wala boo ku la ngénte wala jar ba nga mel nii moo maay explainal sa life waaye dinaa la wax benn ting nag sa baay king raas ku raas xam naa ko bu baax. n'o de ye naan sangara abuko ñoo dee naan sangara abu ko ma koy oyal ay jeeg ñoom mami njaay gis ngeen Westfield ba soo rombee soo rombee Westfield soo leen rombee Westfield Ha? soo leen rombee Westfield am birikama highway bi after Westfield immediately rek baa bu fa nekk noonu baa bu fa nekk noonu ah. foofu tamit dama daan nekka foofu ak sapapa papa king raas am na am ah, ah, Johnson Johnson boobu dee dugga yooni Serekunda bi gannaaw Westfield yoon boobu noonu kër bu weex bunta bu sew benn jeeg am muuti bu rëy Mami Njaay la tudda maa ko dee dem king raas ku raas Fatou Diagne City Pop benn caga mum fa ñu ngi koy wax ne astu astu géy astu géy kanamaam bi yépp gaynde sapapa papa jànxaam la maa ko ko dee dem ooyaloon king raas ku raas fa jaañ bu ma yàpp nga fi Gambia la dafatilima. Remember, I'm from the street. Be careful. Danga dof fatu Jagne. Gambia dama avoid fambi Dama ko avoid. dahala sipet Musuma laa gene vi musuma danga dof. Sa bappa dafa nan sangara bem hana danga mistake hana hamul wasi ko eduga kula binda am um, comment bobo nono si bo don disrespect melvin ha bo don disrespect melvin ku comment non do ko wanne no i'm not bull ma distract gene ma si mbiri wam pak rek mc xam nga man la la gambia man copine la copine bu gor mun nga ma def yep no problem why so mentionné suma jabar suma jabar suma jabar ñetti yoon oo oh, xanaa xamu leen ma man suma jabar jaral na ma ma dugga jahannama sax xanaa xamu leen ne man suma jabar bi jaral na ma ma ma deemayaltu mbiraam te suma jabar bi jaral na ma ma rey nita xam naa luy laa am xam naa ban façon jigéen laa am kii day jihad suma jabar niti aajana la hmm Can you imagine? nit yaa ngi laa suma xaalis di ma kool di ma wax ne gis nga ma waaw rek laa Loma wax waaw ko maa ngi ko musa jo yëpp five times nga ma jox mun naa man deal with facts suma first life fen la last life bi yep dëggal loolu tax nit yi ñu deret sama sila di ñëw si suma life kaay leen gis ma di ma bugg a yablu si laay téegal seen du saaga moo jaane mu ne ma bàyyi saaga ak suma nit yu baax yu nekk Europe di ma jàppale danga bugg ma konteel la sa caga papa yi ma daan dem oo man sekka baay Fatou Jagne yaa ngi wér ay look young ah, waaye mag duma xale de dama tela gog. goog waaye dinaa calm down angum? pour is just hi do hello de hello bi ñëwaangut da yes I was the alcalo of Senegambia man po. suma jabar dina tax ma da man Gambia sa duma daan am jaha. Ken du de buga man dik suma bonai. ma bàyyi taka fi woon ay Gambian ay doomi Gambia soose ñu bitiree ma kooku moom suma ma dara si kër bi yaayam nangu ko suma néeg ma bàyyi ma nekk fii frustré lamba di ñaan yàlla maa suma benn yaay bi maa suma yaay benn yaay boobu noonu no family or friend who come to danga dof at jaañ danga dof ma nekk si noonu booy naa meen ba yàlla génnee ma fii booy team Hondown ñooñu laa miss boss bread kooku laa owe everything in my this life moo ma ñëw enu naa feexay ñoo dugga lekka yey am noppaami ñu mix maay moom waaye man duma jaam man dama am kóolale Baboucarr Deba America boss bread kooku ma génnee fii mooy suma sabab pour am suma jabar jabari urul ayn bi in human form si jëmi doomi aadama urul ayn si jëmi doomi aadama ngeen mi meruma de meruma de billahi meruma dama lay wax am nañ am nañ laalaake man woliwu laa léegi àdduna bi du am waliw yi comme ñoom Serigne Touba Baye Niass Cheikh Omar Fo déedéet léegi ñun ñooy waliw yi ñoom One Pac ñoom ST ak attaque ñetti waliw rek a nekk Gambia man la attaque ST bul ma laal Melvin Melvin man dama bugg a nekk comme Melvin Rob Melvin Roberts la xaw ma lal la sax. melvin boobu dama ko dee xool bugga ko doon ko gën sa baay Adama Barrow boo dee saaga every time moo gën sa baay su nekkee président sa nekkul di def war garaam président la du dee naan sàngara moo gën sa baay Fatoumata Bah Barrow moo gën sa baay duma wax sa yaay because xawma ko danga dof Fatou Jagne your worst mistake in your life laaluma la dama laa warning la rek pour stay away from me How Mustafa How Mustafa Hamalala, we are in good time I don't wanna stop the jokes please am this is too sensitive I'm very serious all my life what three years The ma Gambia yep, xew na ku bay hel di ma deglo hel man ame sample to the wise ñun waliwu lañ nga dof jagne da nga dof da nga dof da nga kontaan ci ñu ma da nga fa neka bu ma jalika sankara don rape ak ñetti ñaari sista yooyu danga fa nekkoon justice moom amutoon léegi justice am na ay need it suma la di luweew kooku bindal la rek ngay disrespect sos Melvin moo la gën a successful suñu waxee nga ne billaax wallaax tallaax di arab arab lu xamuloo day sa jànga angale mutut sa jànga alxuraan sa demut fenn amuloo benn métier you are just foolish adama baro boy saga nunu ñun si kiram nga dikka ngay fanan yana sutura ya hamna sakir. watch your back What's your problem? Do you know who you fuck with? da nga fogg dafa chip to be one pack man ni nga makaveli lim limo ke safa iba foar ifa foar da nga dofana man ngay lal man ma tuda lalake suma tur bu surumle be jooli danga dof xaalal ma bàyyi life bi bara may disappoint suma nit yu bàyyi You ma promise ne dama bàyyi yëfi man am change am a good guy types like Fat jan sori leen ma yaa ngi understand types like Fatu jan sori leen ma yes this court Gallas is going to court ñoom Jalika am am am sista benn suma sista mu fa moom tamit am my so unfortunate mu share a name with my rapist yëpp ak may am fightal pour utal ma lawyer hmm? ñoom sticky booy ST ST moom la bàyyee affaire yi because ndoo bi afa suma You never know. Nipange fight. People are paying lawyers or finding lawyers for me. Mangi cool down, buguma stress. Mahamne Gambia, diaspora bi, yung may fightal. Pour ma am justice. Sis nun ma rape nun. Sis na har la talk. Yo nga may lal ngay disrespect Melvin. Hmm? Pwede nga dofa na. Defal benen video. Dama la def kariya. Woy dama koy bay ma def la kariya. Kudufa Janchatrailen. Kwa Mustafa, that Jalika, the one you're talking about, is looking, I'm um, finding lawyer. He says, my sister. The fact, unfortunate, Regbe, um, um, Boka, Domo Haram, Buma Rape, no, no, Reg. Then again, I'm a one land evidence. Be. The people time bobo, Suma Tube bobo, Musisun shilling. Be. dinaa dem ba ba kaw ma génnee ko ngeen gis kii bu mu doon bu ñii sista yi di discharge suma kaw ni mu taxee suma yaram nekkuma si waxi réeb sa waay yow Fatou jaañ naa lay wax soo amee sa yabaate ñàkk a teggin xamadi kaay leen gis ma foog ñépp ngay dugga man bulletproof laa ku may ku bu may bugg a dugga dinaa la kaar sa sa nama bai saga bila wala tara wai fa yo be suba gemen di hesen wa nyom mo jani nyum mai hol nyom to fay nelson nyum mai hol to fay nelson gambia yone na ma halis pour suma jabar def business ñu jëna ñaari saku kaba indi ko mun ko jaay kooku suma jabar business angum aysatu nakala ay ay nielsen Harold Magina um mag wipe out comment because you people commenting I don't want to um be my daughter um, ma ma firi man la ma xew mu neex leen naxare bul ma tes bàyyi ma soo gisee may wax ñoom Tida Sanyang tiktok a yooyu ñooy witness ne ñoom ami GMTV witness sa sa melokaan si man guest house bu may waa diaspora bi doon ren yónnee xaalis ba nga ma ren jalga moo ko moom bursu bi witness na dem naa ma report la si moom di vidéo naan maa ngi nii si wampaag lekka bu mooy lekka sax amu ko jabara yaa mun a duul si loolu ma ne pat yii ñoo tax ma daaxa faa jaan civilizedly peacefully quietly around me nuñ laa lay su bin my name ñu may kool di ma wane tey xam nañ ne awma caapandeam juróomi wet juróomi yoon rekk la ma jox si yu may yónnee yëpp ñu ngi si suma fóon bi yow lan la faa yow lu la yow yow lan nga faa jaañ lan nga yow yow lan nga ku dul doomi king raas ku raas bul ma yàpp fii laay am nag angum har sa benen ngek rek ma ma you will hear worst I will name the list of your father sa papa maa doon sàngara king ras kuras bu eh, abu ko gamtel baa bu fa nekk am na fa gamtel bi da nga dof Bo don bo ma doon laal xalaatuloo bu baax xam nga ma physically xam nga my capabilities xam nga ne man wéru mala la dof su ma raka yow xale nga don bul duga ñu bul duga ñom bul duga si tati gaynde sa waxuma gaynde si tati safando, dur rek man nek di japp nit yi ya deri nit yi rek fa jaañ yaay kan yow waxuma dara de ñekk laa bugg a dégg Fatou Jagne yow de Gambia ni ñoo la bàyyi si loo nekkee waaye ngay génn di wax nit ñi lu la neex ah? from the president to his wife bàyyi loo kenn Fatou man duma samorom morom soo amee sa yabaate wala sa caapa bi su laay xesen xamuloo foo koy dem xoosee soo ko indee si man dama lay tufli romba la gis loo noo lambee ba tax kooy jox na la problème ñaaka kooy na sa boppa bi yaa ngi am mental disorder nit yi xamuñ xam man ñaata ñan ñooy suma famille Gambia Sol Fresa Hatib Jaane Boy Boy Dramé ah ñu nekk presently suma famille Gambia yi they are on ground not in Europe de Fatou Camara dama dee dem ak suma yaay ba si office mu may ma xaalis man gorla laa dama am kóolale i'm very grateful what the fuck danga dof xanaa hmm danga dof sa papa King Ras Kuraz. the most into maa doon naan sàngar ak moom danga dof ma koy dem ooyal ñoom bu tax ma weer nit ñi maan ñoo xam ne sax waruñoo nit ñi waruñoo xam man. okay guys let me just cool off my man, he talking. now. Mangis, mangi, mangi tok di la kar man dégg ga ñek rek ya la lay def duma woyat every day da nga dof yow da nga dof hello okay Gambia cool gis nga ni ma fresh ni suma jabar hmm? Hmm? dama ya. naan ga wampa léegi la mooy génn suñ ko man dama di sa morom ba di ba man buñ maa réeb sa est que juddu nga est que xalaal nga sa xalaal waaye doomi xaraam ma dama ko bañ ca boo ma wayee ne sa papa mooy king raska dama tiit koto bi boy do ma ba ne ah cha ñu suñu lijen ne ñu suñu icon lañ ma ne pat du mooyu bëgguma laa wax lu xew danga dof faatu jaay ñoo dee laa ñu lay bàyyi ma man maay man waaliw laa pour seen maas yi bul ma yab man du ma sa morom naar yi frustré dof ñeu Gambia dof bul ko indi ci man lo loola puub xam nga ñun Dubai lañ do suma rak man duma bul indi sambir ci man so indi ci man sambir ci man ah ah sa bajo bi laay tepi 53 times tomi haram imbécile par bandik salo moton Kuyong, ayo tous Eu sou uma chaga si français de dona Leubo. boobu imbécile da nga foog da nga xamadi yow da de ñun dañ xamadi ba am da nga doof xanaa da tof. I feel crying ni ma la buggee buddi lee mënu ma buddi maa ngi promise nit ñi ma sagar. Sagar. sole na me ni ma de mere oh do len ma ro boy man ma de mer to a level of dama dee bugg a suppaliku nekk comme hey ñekk sama de ga correct ñekk ma ñàkk suma ndey ma ga ñekk nga duga simon wat waat nga bi am polite Gambia wax len diga maa ngi yaru ci live bi te du boo promise naa bàyyi naa saaga nit du ma saaga kenn te maa ngi koy def you see Gala said if you insult I will not be your friend doomi xaraam yi ñoo dee tax maay ñaaka fa su ma ni ñu bàyyi naan bala uh, paak saagakat la saagakat la waaye dinaa strong strong du ma saaga gis nga maa ngi maa ngi change people su ma fan seeni tubaay maa ngi change te du They might change. It's for myself, my mother, my my my my my my, my wife, boy boy, Sol Fraser, Hatib Jane, Fatu Kamara, um, Fatu Network, Ak Mansour, Mansour. Al Akwa Europe, diaspora bi. After naming those people in Gambia, the rest my is for diaspora and the infants for me to be sample that in know You can't be hard and bad till you became a man. Support len ma ngeen dimbale ma xale you, xale yu may xool change buñ nekk one pack buñ am bad record for their past you know Ousseynou Diouf respect bàyyi ma bàyyi lii hmm? déedéet xëj na faa tes am terrible s. Boy don't tes sa sëriñ na la demal demal wat demal wat nga wat nga tessat sa set nga test sa next one nga set da nga dof so ma traaye yo mi nga xamne nga nuro ni har wala bebe mbam suma sama la da da ngay wér wan ne one da nga ñaka ñaan one bag dama ko don lifin Ah, eh, eh, eh, nit yi war nañ ma ne du ma mujjee dina duuloo man ina mel afa foo mujjee gis ngeen lim ma def lan laa la def wax ko yow su ma la defoon dara yaa njëkk a génn rek nga tër nit yi xam nañ la dama la bëgg a ne man duma Melvin Mbete Fatou Ba Barrow first lady bi au président Adama Barrow man maa da baay Moussa Seka ba sa ñaanga ba lim ba <sighs> my bio life be, you want to mention seen tur yi my sister you might yu may jàppale Europe Then my bàyyi ñoom and jaane fële